aca Rachid ñu dem place yi ma dem yëpp a ma neex ci suba ba tey mais bii daf ma dàkkal muy Birane Wade tiira muy sama mag di sama xarit yar ma démb bërki démb ak tey vraiment li sama lépp fekk ko fi nag muy sama xarit bu baax a baax a baax mu bokk nag ci sargal yi su Diop di def fële ci Manufacture des Arts le 3 février mu boole ko ci moom Birane wadd Birane maa ngi lay nuyu maa nuyu caat ngi lay ziar bu baax a baax di la souhaiter bonne et heureuse waa ñu fekke ko ay ati at yow sama rak nga sama xarit nga mu nekk lu yàgg di ñaan at mi ñu dugg mu nekk atum jàmm atum naataange atum yërmande aussi yàlla def ci senegal jàmm ñu gën a yaatal xol yi ñun suñu biir gën a yéeneente jàmm su ko defee réew mi def jàmm suñu kilifa diine yàlla may leen wér ak gudd fan. macha allah kàddu rafet na maa ngi ziar soxna seeg njaboot gi waaye Birane ñu fekk la fii ci sa place Gawsu Diop di la sargal le trois février Gawsu jóob la différence couture mu boole la ci sargalu la nag loolu man lay sargal ak euh, samay moroom ak ñeneen ak ñeneen ndax yow da nga bokk ci ñi ma yar te yar nga ñu bëree bëri nga yor jikko ju rafet yor xol bu rafet ku la gis ren bu dewee déwénee noonu la lay fekke waatee ma yàgg la xam loolu du du tey loolu muy mbetteel goo xamante ne Gawsu defal na la ko waaw moom sax daf ma affaire bi jël na ma surprise parce que koo xam ni lu muy def da ciy waxtaan ak yow ñu ciy waxtaan bi ñuy waxtaan mu ni ma dañuy def sargal affaire yooyu quoi ñu waxtaan après la ni ma am naa bu ma desee sax mais boobu surprise laa koy def mais bi ma waxee comme du ma yàgg naa jëli xam naa ni peut-être man lay wax euh, ba dimanche mu envoyé ma euh, photo bi photo sargal bi mu nekk lu ma neex nag parce que moom bi ñu waxtaanee sax danaan la maak moom démb la woon ci bi ñuy jàng métier ñu bari na dañoo foog ne gaw su regroupement moo ñu boole parce que dafa nekk ndaanaan ci métier mi daan ñaawlu patron bi ma jàngal métier tamit maa ngi ko ci nuyu à passage mbar wadd mbar mu ndaw di ko jaajëfal bu baax ateem ay ndaanaan rek a fay nekk amoon benn modèle lii fa bu génn mais comme sooy jamono jooju euh, ñun am na luñ ci téye lu dëgër relation boobu moo ma indi sama diggante Gawsu bi mu indee modèle bi man la ko mbar booleel te effectivement ah, modèle li fa ba tey ba léegi yàlla boole ma ak moom kon moom ku am coloré la te nit ku baax rek mooy def dara boole la ci boppam mais nëbb ma daraam quoi vraiment dañu waxtaan ci yu bare bari mais di ko ñaanal suñu borom fay ko fa mu bëgg egg mu egg fa euh, li ñu yéenante ma ak moom suñu borom dina ko def incha allah parce que lépp lu sell la quoi déggeen wax jooju ndax loolu booy na suñuy nopp démb ba tey ñu ngi dégg ne euh, Gawsu Jóob nit ku gore la su nit ku baax la waaye borom xol bu yaatu la ñu ngi fii nag ci Birane Wade Couture jàkkaarloog penc mi fii ci Madina Fall nee naa la billet yi ku ko soxla na ñëw fii ci Birane Wade ndax dañ ko ciy sargal Euh, simple 2000 VIP 5000 ku yéex ñàkk nañu daw gaaw ñëw fii ci Birane waat sama mag waaye maa yëg nga ne sa délégation laay bokk ndax yàgg nga maa ñawal lu rafet may sol mosoo maa wàcc benn yoon. <laughs> yow sama délégation ngay bokk parce que man maa la séddoo man te incha allah dinañ ko wàcc képp koo xam ne sama nit nga te nga jàpp ni sa soppe la maa ngi ñaan bu bis baa nga ñëw tam ci taxawaay bu dëgër parce que jàpp ci bis bi rek ñun moom la ñu war a fay gawsu parce que loolu moo ñu war. parce que Gawsu nit ku baax la te dafa def lu am solo nag gis nga nit euh, da xool ci bii mu mënagul ngay sëkk ak moom teraanga di ko sargal mais li mu def dafa jafe ci Sénégal partout nag dañuy bàyyi nit ki ba mu faatu ñu doog di ko sargal kon nag Gawsu tey bu ko jëlee tey def ko tey man jàpp naa ni def na lu rafet te affaire noble la def parce que ku soxor mënu ko ah parce que mënoo ni tey euh, samay mënoon mënoon ko bañ a def parce que am na xam ne day suul ndaanaan mais comme gis na ni Birane ñoo bokk di yëngu ci métier mi mu ñëw def lii kon xëy na am na benn visibilité bu mu bëggaat ci yow aussi kon nit ku baax la di ko ñaanalaat nag lu mu bëgg ci métier mi yàlla na ko suñu borom may te dara weesul dara weesul xale la te yàlla mën na ko dimbali bu baax sax man gis naa loolu. senegal dañoo mën suul ndaanaan mais nag ñu mel ne gëwsoo ngi fi ndax yow nee naa la nuñ koy waxee du saxaat buñ kii xal buñ ko defee ci ànd. ba def ci cuuraay soo ko muuree sax du ma saxaat kon boog yow macha allah du gawsu da koo def dafa def rek lu ko war ndax yow tamit mérito nga ko say niti démb ñooy say niti tay ba tay ji ndax wax nga ko ci say biir wax gawsu Jóob sa niti démb la moo tax tey mu ne dalay sargal keroog ba ma ko waxee daf ma woo téléphone mu ne ma waxaguma ko sax biraan ma ne ko biraan waa meen mu ne waaw ma ko def nga lu lu baax te def nga lu rafet ndax biraan nitu ñëpp la waaw mooy comme li ngay wax rek yow daanaka wax nga wax ji parce que nit ku baax la amul problème te mooy li ma la wax rek nit ki dana xam ni mu war a def te du ko def mais Gawsu dafa xam li mu war a def ba pare di ko def te di lancé waxuma la man mi muy sargal mais damay lancé képp kuy nas puso maa ngi lay tàllal loxo nga ñëw teewee bi si Gawsu Jobe parce que Gawsu amulum tànkam lu regroupement bi Gawsu léppam jox na ko regroupement bi kon maa ngi ñaan képp koo xam ne yaa ngi dégg sama kàddu gi na nga ñëw teew ak teewlu boo mënta teew sax na nga yónnee waaw parce que bis la nag bis bu baax la bis bu am jëmm la bis bu ñuy darajaal lay doon te dinañ ko téye ànd ko moom ba nga xam ne téye nañ ko incha allah loolu moom amul luñ ciy ragal ci kàttanu yàlla. Birane ma ñëw ci ñaw yi nag ndax yow moom sa sargal moom buñ ko fi doon waxtaanee sax du du mës a jeex ndax yow Gawsu nag sargal nga ko mat a sargal vraiment nee naa leen nag billet yi mille la VIP 5000 manufacture des arts lay am le trois février mise en place bi 20 heures la ku yéex ñàkk ndax Birane bu ñëwee ak délégation oh du yomb Birane ñu ñëw ci ñaw yi ñu ngi la fekk yaay ñaw ñaw yu rafet ndax da ngay ñaw di jaay wala yow da nga làqatu fii sa ruqu feeñ <laughs> <laughs> dëgg la waa souvent nag ñu am ay commande euh, ñaw di jaay sa très rare lañ koy def mais commande bi daal lañ ëpp lu ñuy liggéey quoi mais nag suñu projet ñu ngi ci di ko di ko def ndànk-ndànk parce que àdduna moom dara dara weesul te àdduna ak euh, xat-xat yi jamono yi en ñoo ànd Covid bu ñu génn ak tataar mais lu nit bëgg ci téyër am ko di ko doxal teg nañ suñu bët te incha allah xel mi am nañ ko lu ci des financement te loolu danañ jug dox ko wax ko incha allah parce que bëgg nañ visibilité bu gën a bu gën am solo te xam-xam bi tiituñu ci mooy li ma la wax di sant sama patron di ko gërëm parce que gëm naa ni am na lu ma man sax loo xam ne jànguma ko woon ci moom kon loolu jàng métier ak métier tarbiyaw sa patron moo ko may kon moom fu ma tool dama koy sant di ñaana sama ñaari jur aussi tamit di leen di leen di leen gërëm bu baax que tegoon nañ ma ci loxo yoo xam ne ku ci tegu daal yàlla suñu borom mën a la suturaal te way loolu la mënal doomam kon nag euh, nañ nañu yàlla lafal cat ndog-ndog yi nga xamante ni traversé nañ ko ak buntu àdduna bi ñu toll war a réagir lu bàyyi suñu kanam suñu borom yombalal ñu lépp defal ko képp koo xam ne am nga yéene bu mel noonu loolu moom maa ngi koy ñaan di ñaan ak téer yi ñu gën a góorgóorlu gën a jege regroupement yi di gën a xam parce que loolu day dimbal téer activité benn du ma ko def sama bopp noonu non dañuy dugg dem ci regroupement yi teer yi di ci bokk di affilié wu di xam li xew di am ay information di def ay formation aussi loolu daal maa ngi koy sax bëgg a waxee ak dama lay fekk ay formation yu bëree bëri nga yokk xam-xam bi comme kero fekk naa la ngeen di jël seen i diplôme formation yi tamit gis naa la nga bu baax a baax nga ciy dem waaw formation yi moom mooy li may wax rek di sant suñu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ jiital ci wàllu ñaw parce que doomu aadama noonu ngay doxee formation bu ci man di am rek ñoom ñooñu ñoom ñooñu ko yaatal ñoo ko dox ñoo ko décroché ñëw indi ko jox ñu ko kon ñun amuñu lu dul di leen ñaanal di leen di leen fay ci loolu mais di wax tamit comme li ma la sànq rek na téer yi bàyyi toog seen rukk formation boo ko déggee da ngay dem boo ko ci téer lu ñuy dox nga dem dox loolu dina la dimbali te dina yokk sa capacité te dina tax doo ragal dara ci sa métier waa renforcer lu bari sax sa métier muy lu am solo nag di ci conseil ñëpp ñu di ci dox di ci wax voilà. ma bàyyi la nga woo waa Madina Fall yëpp ak say client ak say clientèle ñoom ñëpp le 3 février. waaw waaw maa ngi woo Thiès. <laughs> damay woo laay woo quoi. waaw ah, maa ngi woo di woo képp koo xam ne yaa may dégg. di jaru sax liim parce que am na kilifa yu may ñawal. maa ngi ñaan ñoom ñëpp ñu teew ay kilifa la jar may tudd seen tur ak seen njaboot. waaw ah, di lancer Thiès yëpp mën na Fall. bàyyiwuma kenn daal képp koo xam ne sama soppe nga wala nga musu nga ma teg bët te xam ni kii eh, lu baax nga ko xame mm-hmm. maa ngi lay woo pour nga ñëw teew ci ci défilé bi voilà. man damay woo Pape Thiam nag eh, xam naa sa délégation lay bokk Thiam Babel Demba Thiam Couture waaw kooku kenn moom yëngal na keroog 24 décembre ak ndong création Couture mu nga ba Cité Senghor maa ngi lay woo nag ci défilé bi nga ñëw dooleel gawsu bu baax a baax a baax. non gars yi ay jàmbaar lañ Pape keroog indi na fa lu rafet. ànd ak ay naataangoom ñoom ñëpp vraiment ku ci ñëw am nga lu rafet parce que défilé bi fête la woon te taxaw nañ ci ku ci nekk na nga war a taxawee te keroog defe naa moo du Cees keroog rusul parce que indiwuñ fa loo xam ne dañ ci xeeb Cees kon nag di leen encouragé ñu gën a dàbbaliwaat muy gën di neex di gën di kawe ñoom ñëpp ndam ca kanam rek incha allah incha allah Boubacar marché Daaru Salaam Gawso ngi lay xaar na ñëpp ñëw ndax keroog génnee ngeen lu rafet kon sañse leen lu rafet ñëw Birane waaw def na lu rafet macha allah maa ngi lay jaajëfal bu maa ngi lay fay caat di la nuyu di nuyu Babacar di rafetlu seen ànd yéen aussi ma leen di ñaanal waxuma ne média la ngeen am ay ay média yoo xam ne yéen a koy téel seen bopp parce que loo gis fii la tàmbalee quoi nit faa nga lii lépp nag après dañ koy traversé su ngeen ko gëmee gérer ko incha allah gëm naa ne yàlla dañ leen yóbbu fa ñuy dégg gars yu mag yi dañ leen fa dégg ba ngeen yor ci njaboot goo xam ne kenn du leen man ci li ñuy def ci barke Serigne Touba yàlla man na ko di gërëm tamit aussi sama emprunté yi ma nekkal fii muy Baara Ndey Xadi euh, euh, Fatim ñoom ñëpp Nday Njaay bàyyiwuma kenn daal waaw maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp di leen ñaanal tamit métier mi ñu fi sàkku yàlla nañ suñu borom dëgëral ñu ñu ñu man ci dara quoi barka Cheikhul Khadim mais rafet naa teewaay ba trop gawsu moom maa ngi koy ñaanal bu baax nag waaw yàlla na ko yàlla dimbali doolee koo may tawféex ak sutura waaw di ziar gaa yëpp rek bàyyiwuma kenn jaajëf rek